mbokku jullit ñi rawatina yéen xaadir yi Sen TV ak Quincaillerie la président ñoo leen di may ay palaato yu mucc ayib fële ci gàmmuwaar ca Njaasaan bi rawatina yéen ñi nekk ci diaspora bi mën ngeen ñoo suivre fii ci en direct jërëjëfe boroom Njaasaan gi boof di yalwaan ànd ak rafle ci bu la neexe bee bul ko xoolee ni mu ko ngir ni nga mel moom daa tilim te yaay fóot raxas ko fat ko sëñ bee allahu yow rekk ay buur yonen ba moo di maxtaar ndongoy feesal cofeelam wax mébétam yi sëñ bee gàmmu laajoo jërëjëf xaaju guddi oh. def tawasul ci sëñ na ko sa bis bi laay wax sampu bis ba ndongo li gëm na sëñ be na man li may ñaan nangu na ndax misaal ma góor si ma gis mu yeewoo mooy ki ma tudde sëñ be quatre heures Tidna Hallelujah! Boleh sebelum dari kemenang, dari kemenang, dari kemenang, dari mambo Allah masyarakat mashallah sibitani sebagai ga agalon insya Allah agalon dan itu uya iyan na baya na wil ya ba kacika na kebun wil ka cira buta na ba diyan di sul masu ne aka di sul masu hele ko ba bu wata bayi bere inshallah nena shekhu nabi bu ci amee kàddu yu ci sànni mu wax ko moom bu paree mu jox sëriñ Mansour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 سخر الشمس والقمر والنجوم ألا له الخلق والعمر تبارك الله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان نحييكم جميعا بأطيب التحيات الإسلامية وأكملها وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتبارك الله جنة بني jotee ndigal si kilifa gi toog muy sunu kilifa Abdou Khadre Kounta Cheikh Abdou Khadre Kounta ñu ngi koy nuyu nuyu bi mu mérité di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu kilifa gi la si biir kër gi di Cheikh Omar Kounta yàlla nañu dafa yàlla bàyyi ba ci kanam yàlla yàlla may ko wér yàlla saxal sutura si ah xamuñu sax lu ñuy ndax boo jàngul lu bari toog ak ay kilifa ñoo xam ne la ñu xam kaar ba sax xamoo ñu jox la kaddu. danga jaaxle waaye sant yàlla rek ni mu gëw suñu coow mi nga xam ne tey njabootu Mbacké Gaye Diop si góor ñi moo si kilifa di ñaan yàlla taxawaayam yal na ko yàlla saxal lu mu man ren yal na ko yàlla ful bu déwénee moo képp ko sunu wéyjur moom maam Yaama Kamara nuyu sunu kilifa Awa Coy ñoom ñaar ñu yóbbaale mboolem jigéen ñi yàlla yàlla saxal leen si kanamu njaboot bi yàlla leen gunge yàlla leen uuf sant yàlla mi ñu may ñu teewaat fi ren gannaaw ba ñu fi teewee ak yu weesu diggante daaw ak ren lu ne jaar na fi kon bu ñu yàlla sàmmee ñu toogoon fi daaw mu sàmmaat yu ba ñu tegaat toogaat fi ren war nañu sant yàlla sant bu amul ab bu amul ab ñu ngi koy sant di ko sant si di ñaan yàlla subhanahu wa taala na gën ni ñi fi teewaat yàlla ñu si yàlla bépp aajo bu fi waaji waaye indi يالا يالا الفج اجبو كيف بو الله الفبر يالا يالا صبر كل يوم لو جاب يالا يالا يوم تتكسلو ا نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد كون نك نيم كاي تبارك الله بو كان في ñu xam rek di tax ñu ñëw ci aduna dara taxul ñu ñëw ci àdduna lu dul ngir ñu jaamu yàlla ku ne nag war nga seetlu sa bopp di seet ndax li taxoon ñu bind la yaa ngi ci wala nekkoo ci waaw dara taxul ñu bind ñu lu dul ngir ñu jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يتئموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين soxlawu ma ngeen jox ma ma lekk soxlawu ma ngeen jox ma ma naan yooyu maa ko amee képp ku ko jot ma maa la ko jox kon li tax ñu ñëw ci àdduna ñu koy bàyyi xel mooy ñu jaamu yàlla dara jiitu si nag. gannaaw bu ñu ko wéetalee moom subhanahu wa taala bañ ko bokkaale ak dara bañ ko bokkaale ak kenn ñu topp rasulillahi bi nga xam ne moom la ñu joxe mu nekk suñu kilifa fu mu ñu xooloo ñu xool ba fu mu ñu tere ñu war ci ginnaaw wuyu jur yi nga xam ne ñoom ñoo ñu meññ cër bi ñu am si ñun ñu jox leen ko. si wàllu yëm leen si wàllu fonk leen si wàllu toppaleen mbokk yi ñu yàlla booleel ñu rafetal suñu diggante ak ñoom dëkkandoo yi ñu rafetal suñu diggante ak ñoom ñu fas yéene di jariñante bañ di lore mbaax mi ngi tàmbalee si nga ngay nga di lor kenn te koo mën jariñ nga jariñ lépp loo dégg ne yàlla xaraamal naka nga moytu ko ñu boole la si ñi gën a jaamu yàlla ittaxil maxaarima takkun ahbada naas warda bima xasama allahu laka takkun ahbada naas wa ahsin ila jaarika takun mu'minan wa ahib linnaasi maa tuhibbu li nafsika takun muslima wala tuksiri dahik fa inna kasrata dahik tuhik tumiitul qalb ñu ne moytul lépp loo xam ne yàlla xaraamal na ko ñu boole la si ñi gën a jaamu yàlla nga doyloo li la yàlla jox si wërsëg nga bokk si ñi gën a omle nga rafetal jëm si say dëkkandoo bañ leen lor ñu booleel si ñi gëm yàlla nga yéene mbooleem jullit yi li nga yéene sa bopp si jullit yi nga moytu lépp luy caaxaan ndax caaxaan bu bari dafa yaray xol te bu sa xol deewee reer dootu ci tànn kon nag gàtt na waaye dénkaan yu am solo lépp loo xam ne yàlla xaraamal na ko nga jéem ko xam te moytu ko xam ne sa gaay rek moo si ne lépp lu yàlla jox si wërsëg nga def nga def effort waaye nga doyloo nag dëkkandoo yi la yàlla booleel ngay rafetal jëm ci ñoom te moytu leen di leen lor mbooleen jullit yi nga bokkal jamono lépp lu ñu am nga yéene leen ko loolu bëggul mu dal la si sabar nga bañ leen ko yéene loolu dafa mel doon na doy sëkk mu nekk leçon bu ñu mën a yóbbaale rek ba déwén dafay fa tabarakallahu ñu bàyyi xel suñu wëriñu ab dakay jóg nga xam ne jataay bi bu amee gannaaw yàlla si taxawaayam la amee ndax moo si yar njabootam dundam ñëpp mi ngi nekkoon diggante liggéey fonk jaamu yàlla fonk liggéeyam fonk njabootam fonk tariixa bi nga xam ne moom la bokk muy tariixa continue kon nag nañ koy bàyyi xel fu mu tëdd di ñaan yàlla yàlla yàlla yokkal leeram te tas du si barkeem am mbooleem néew yi nga xam ne jiitu nañu ñoom ñëpp yàlla yàlla yokk seen leer ka defee ñu góorgóorlu rek a caaxaane julli ndax boo julli nga te doo julli da ngay nax sa ponki lislaam yi juróom la gannaaw ba seede wéetal yàlla ci nguuram seede ne rasulillahi yàlla moo ko yónni ponki bi jiitu mooy ngay saxal julli képp koo xam ne doo julli yaa tudde sa bopp waaye kaw asamaan tudde wu ñu ka dafay nga yitte woo jullit lépp di nga def si waxtoom boo koy def fii nga sellal bu ko bu weeru koor jotee nga bañ ko caaxaane war ka na mu waree bu la yàlla dénkee wërsëg bu azaka jotee nga génnee azaka nañ la ko diggalee boo amee wér am wërsëg am barke yooyu livre nga war a mag nga dem aji mag ponk yi lislaam yu mag te defee ku nekk war nga yittewoo loo doon doon xale nga bàyyi loolu xel ndax yii ku si tënkuwul loo mën a jàppati tënkuwoo si bii yaa ngay nax sa bopp boo dajeeg sa borom di nga rëccu bu ko defee nañuy bàyyi xel suñu diine nañuy bàyyi xel suñu diine di ko dundal ni mu waree bu ñu dajeeg suñu borom mu fay ñu tàbbal ñu àjjana waaye képp ku sàggane sa diine ba dajeeg sa borom di nga rëcc te defee na ñu teel nga xam rek fonk waajur yi fonk dëkkandoo yi fonk mbokk yi fépp fu ñu nekk ñuy def lu rafet te moytu lu bon fa tabaarakallaahu xaw na gàtt waaye ñu sànni kàddu yooyu rek mu nekk yóbbal ngir njaboot yi ba ñaan yàlla ñu dañu war fi déwén ak jàmm sëriñ Abdou Khadre Kunt nekk suñu kilifa nekk suñu xarit soppal ñu boppam ba samay mbokk yëpp xam ko samay xarit xam ko maa ngi ñaan yàlla suñu kóllëre Kunta yàlla ñu ko yàlla téyal yàlla ñu ko yàlla sàmmal nga defee bu ñu ñëwatee rek ñu gën a organiser jataay bi ñi nga xam ne nan lañu fii te mën a jàng donte dana kaamil la bu ñu ñëwatee ñu jéem ko jàng su julli jotee ñun ñëpp lu ñu jàppoon ñu bàyyi daf fi ay sàppe yu mag ñëpp julli waaw bu boobaa ñu mën a xam ne gàmmu si nga waaw ndax loolu mooy laytaayu diine lazina yaxduuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan ñii yarjuuna tijaaratan lan tabuura liyuwaffiyahum ujuurahum wa yazidahum min fadlihi innahu gafuurun shakuur bu ko defee programme boobu daal chef ngeen bàyyi ki xel déwén ñu tàmbali ko incha allah bu ñu ñëwee ñu xam ne diine moo tax ñu jóg. ñu seet na état yu dëgër yoo xam ne buñ fi jógee ñu nangul ñu suñu gàmm te demee ñu lay bàyyi loo xel loolu yaa ngi koy organisé di ñaan yàlla taxawaay bi yàlla yàlla yàlla ñu fi teewaat déwén yàlla yàlla faj aajo yi yàlla yàlla saafara tawat yi yàlla tey ñu suñu góob kóllëre zaahiratan wa baatinatan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتحديثهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتحليلهم وتعظيمهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد كل ما في لك يا واحد صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتحصيل وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرجوكم yàlla jërëjëf bu baax ñaan yàlla comme ni nga ko waxee bàyyi bu ah fi yàlla bàyyi ba déwén incha allah léeg-léeg li sëñ Mansour wax ñu bàyyi ci xel programme bi loolu yokkute la rek macha allah yàlla yàlla may ñu fekkee déwén te euh, yàlla doon nañu wér dina yokk kàttan bi yokk teewul lii mënutoon a ñàkk parce que lii suñu bàyyi sëñ Mansour mu toog mu waxoo ah waaw. voilà voilà kon nag liy jëriñ mos a ñu dolli ñaan rek comme ñaan du doy ba na am na solo macha allah amari dunya ka annaka amal li aaxirataka kaanaka tamutu xadan lépp loolu rek la boo di jaamu yàlla jaamu yàlla ba mel ni suba gi ñu fi jógee su ngeen ci liggéey ngeen liggéey ba mel ni doon fi jógee woon awal ma yaxasab bihi yawma abdu yawmal xiyaamati min amalihi salaatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad xaaba wa xasira kon lépp julli yawmal xiyaam buñ fa demee bu sa julli baaxee sa lépp baax bu sa julli yàqoo sa lépp yàqu kon ni nga góor a tuddoon rek macha allah Diouf kàddu yi bàtt na gàtt na am na solo macha allah su ko defee rek ñu ñaan yàlla ñu fekkee déwén yi bare bare bare bare waaw yaa defal ñu jàmm fan ko defee bu yaram mën ñu wéral wér képp ku fi ñu soxla soxla bu mel ni lu mën toll yal na ko yàlla saafara ci bàtt si naama sallallahu alayhi wa sallam kon ñu def euh, donc yéene jàng Fatiha Fatiha ak maa ngi saa bu Fatiha من كريم من مكرم سيدنا te ku Muhammad junni yoon sa bagg ak bagg yonent alfa ala janna نذير منذر نور Thank you. Alhamdulillah sudah Boleh Terima ya, kasih. me, rawatina yéen xaadir yi Sen TV ak Quincaillerie yi le président ñoo leen di may ay palaato yu mucc ayib fële ci gàmm war ca Njaasaan bi rawatina yéen ñi nekk ci diaspora bi mën nga ñoo suivre fii ci en direct jërëjëfe borom Njaasaan